asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxemes ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci rabiul axar muy weeru rakki gàmmu ci atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ñeent ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bokkul ci lim yi fàtti lim bu rafet la kon tey ci alxemes ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo alxemes ju nekk nag sunna la ci ku ko man mu woor ko bis bi yow yàlla yàlla na nga nu defal sa barke ak sa yërmande ak sa ngëneel ak sa wërsëg allahuma busut alayna min wa rahmatika wa min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa risqik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tàngooru yaram mi ngi bàyyikoo ci uppuk sawaraw jahannam na ngeen koy serale ci ndox xadis bi buxaari ak muslim nettali nañu ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam alxumma min fayxi jahannam fabruduha bilma rawahu buxaari wa muslim waxtu julli suba waxtoom naata bi juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simil ak ñeent yu toftal ñaar fukki saa tisbaar benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili timis juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñett ñaari waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñeent loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko wër